kenn mënu ma man kenn munu ma c'est que làmb mooy ñëw rek ma war a daanu daanu mais man ñi ma daan kenn mënu ma ci. mais nag dama koy sant yàlla bu su ko bu xëy na su ma leen daanu mun naa nekk ci leneen yaa may dégg moo tax nag damay sant yàlla lépp lu ma suñ borom lee rek man nangu ko. Coense Coense ñu bëre man ak moom ñëpp ne da daf may rey laa la ma duma ko mu daan ma hmm. waaw ndax Coense boo xoolee ñu mu bëreel ñëpp. dafa jàpp seen tànk yi bu dul ba si ko dóoj suuf papi général noonu la ko daane noonu la daane Tafa Gueye 2 yaa may dégg mais man ni mu daane ñooñu ñëpp noonu noonu la téye sama tànk yaa may dégg ñu bëre ñu bëre ci kaw bëre mu daan mais tamit war na moo fa yaafus war na moo fa dara xam ne daf ma war a daan ma nangu ko waaw moom it mu nekk ku baax nekk taalibe tamit nekk sama sëriñ mu tudd sëñ Babacar te man may taalibe sëñ Babacar Si xam naa ne loolu rek moo ci moo ci laxasu woon moo tax ma ñàkk combat bi waaw mais nag dama dama ko dama ko nangu bu baax a baax baax ba ma xamee ni ba ma xamee ni commence sëñ Babacar Si la sëñ Babacar la tudd man boobu bo avant bëreeguñu barke Serigne Babacar Si nekkul li dama dama xaw a tiit sama bopp. billaay wallaay waaw moom taalibe la taalibe Serigne Babacar Si la bu baax baax maa moom waaw mais nag maa gën a bëgg Serigne Babacar Si. waaw. Alioune Sèye Junior bu ñu fi nekkee di leen du judik mais ñu gis ni après Alioune Sèye Junior ñu bari ne amul staff. Mhm. parce que dañoo gis ne dafa nekkoon ci yoon bu baax. Mhm. Alioune Sèye Junior du du moteur. Mhm. boobu Alioune Sèye Junior mi ngi tegle ay victoire. macha allah nit ci dynamique bu baax. nga jël double moteur. jël mbay guy gi. jël dafa am lu bari ne Alioune Sèye Junior. amul staff quoi parce que staff bi mooy mënuñu concevoir nga nekk ci benn yoon bu ay champion mhm. euh, duma ne nag wax dëgg yàlla Double Moteur champion mag la mhm. macha allah kii di euh, Tafa Mbër noonu kii mhm. Mbay Guy noonu mais a aw fa da ngaa jàdd da nga doon bëgg moom defet moo ma moom Double Moteur ba may bëre ak moom defet moo ma si kan laa jógee hmm. boo ba may bëre duuma te coinche moo ma daan mu ñëw fekk mu tegal ay victoire yaa ma dégg ñu tëgg sama combat man ak moom yaa may dégg man nangu bëre ak moom defet moo ma boole nag coinche dégg kii duwul moteur defet moo ñu boole man ak moom moo jugo ci duwul moteur ma jugo ci duwul moteur dem jël kan mbay guy gi mu daan ma ma teg la deux defet sama carrière mais pourquoi parce que waaw maa ngi ñëw. Mhm. ma teg la deux défaites sama carrière nee naa la man entraînement sax soo ma daanee benn yoon doo doo ma daanaat wala foog ma daan la nga doog ma daanaat teg la defet man xooma ko mbapat bëri naa mbapat léegi nee naa la man ba may bëree ba may commencé mbapat lan ma daan mais ba ma demee ba gëmmilu ko ba xam ba fii ma toog yow nii amul kenn ku ma mus a daan mbapat mbapat benn combat mbapat laa xam ne komba nommé buñ bu ñuy naatoo nga laa am yaa may dégg mais ñi si ñëpp dama leen daan ko yaa ngi kon man man xoo ma defet man xoo ma defet mbéy gu gi def ma daan koyoon daan ma mu teg la deux defet mu metti ci man lool. waaw mais tamit nit ki doomu aadama loo muñ rek mu jeex ñooñu. ji ñoo ñoo du déglu nee naa la koyoon si ba may bëre moom boobu boobu lig na ko laa moo ko tëgg. yaa may dégg fay ma ci xaalis. Ah. mu bëri ak moom. yaa ma dégg ma juge fa Assane Ndiaye tëkkaat sama combat ak Double Moteur dégg nga ma te maanaam boo boo Assane Ndiaye tamit ku baax la ku gore la nit koo xam ne lu wax def ko loolu du ma taay du ko wax combat yi ma tëggal yëpp lépp lu mu wax ak man def na ko waaw kon moom borom baax la. mais mbay guy gi. mbay guy gi lu ma wax nee naa la man du ma taay du ko wax dafa am luñ lu ma boole woon ak moom yaa may dégg mais li ma boole nag moom bëri na mu daan ma. maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi def li mu war lépp maa ngi koy def sant bu wér a wér a a wér dégg nga ma nee naa am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur mbéy mi dafa am lu mu boole moom yaa may dégg mais te la xool te la ñu bëre man ak moom ma taay di ko wax loolu promoteur bi la woon bëre nañu def na lu ko neex baal naa ko ci xol ba seddu guy ci barke sëñ Babacar si fépp lépp lu mu sumu rek moom Fallou Ndiaye yàlla na ko suñu borom dimbali yaa may dégg loolu mu wax teewul teewumaa def dara maa ngi lekk maa ngi naan yaa may dégg jugu ci combat boobu amaat beneen combat suñ borom defal ma ci ndam kon sant yàlla bu wér a wér a wér a wér. mais Alioune Junior. waaw ñu tax ndax wax nga ko da teg la ay défaite. Mhm. muy mbay guy gi. Mhm. ak kii yëpp mhm. ñu bàyyi la Alioune Junior mais Alioune Junior. est-ce que jaarutul yow. ak tamit li nga fi def. macha allah. ndax marqué nga sa empreinte. est-ce Alioune Sèye Junior xoolaat yoonam parce que. Mhm. ñu bari ne est-ce que combat yi réellement. Mhm. Mhm. ma la nee naa la man musuma jël combat ma ah, d'accord ci man kese nee naa la man ñi ma ñi ma dem ñi ma dem gérer ba may mbapat ba tey ñooñu ñooñu ñoo nekk sama ginnaaw yaa may dégg ñi ma war a bëree rek laay bëreel te làmb ji ma tollatul fu ko gars yi di tollal yaa may dégg fii chaque jour nga gis fi combat yoo xam ne warul warul mën a nekk mais làmb ji moo dee boo bëggee dégg-dëgg làmb dafa dee. lamb amatul amatul amatul punch promoteurs yi promoteurs yi amatuñ xaalis mbër yi ñu fi nekk di entraîné war a bëree buñ bëriwul buñ bëriwul fan la ñuy bëree dañuy dem agressé ji wala ñu duñ def ci leneen non non dem sa ngor man taalibe laa dégg la nee la ma rus naa di wax may ma te si si télé si télé laay waxee amul kuy yaakaar may ma lay tàllal sama loxo naan la may ma non combat bu ñëw ma ko waree jël may ko jël ko jël la ko waxati la ko du la may cent franc la ko may boo demee neneen may ma téeméer bu la ko mayee suba boo ñëwee neneen ma téeméer bu gannaaw subaa ñun la mbër mbër moo ñëw nee ko génn naa te man nag sama ngor mooy ma mooy ma loolu man déglu ma mais nee naa la taaliba Serigne Babacar Sy laa te mu dëggu nag barki Serigne Ba du ma ko du ma tàllal kenn loxo naan ko may ma non non mais nag am naa samay mag. am naa ñi nga xam ne carrément man ak ñoom boo boo leen tojoon tey benn la man ak ñoom yaa may dégg mais kanta koo xam ne ngay bëgg ma ñëw naa la di tàllal sama loxo non waaw maa ngi ci gërëm na ku ci mel ni Kéba ak Masata ak ak ak ak waaw ñooñu moom maa leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax waaw ndax ñoom dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax waaw ak Abdou Salaam Abdou Salaam tamit da ci jàpp bu baax a baax a baax a baax waaw sa ak samay mag ñi ma bokkal ndey ak baay ak ñi ma bokkal baay ak samay gaayan ku ci mel ni ay baay biro Amar Fall ñooñu dañ ciy jàpp bu baax a baax moo tax nag ñooñu ñoo tax man namuma dara waaw ñooñu ñoo tax man man mais nag kanta ñeneen ñuy yey non non combat bu ñëw su ma waxtaanee samay staff buñ ci d'accord ban pare naa ma nekk du ma fi naan ay du ma bëre kii ak ma bëre kii non làmb ji tollatul foofu làmb ji tollatul foofu ñu ngi nii ñu ne couvre-feu ñu ñu amoon combat seen combat day dem déwén la jëm. ndax waaw mais maanaam maanaam xam nga tey ñu bu dee bu waxantee dëgg rek ñu bañ a nax ñu ñu bañ a naxtaanante. Hmm. yaa ngi dégg combat yi waroon na am ñu ne su gi ñëwee la ñuy bëriwaat bu hmm. yaa ngi ci koor. Hmm. da dégg benn promoteur bu bu jàpp dat combat boo bëggee dégg dëgg déwén la jëm wala sax beneen beneen beneen bu neexee ñu ne beneen saison. soo toogee bëriwoo. kan moo la jox la dunde ah. boo toogee bëri woon kan moo jox loo dunde mm-hmm. doo dem ci mbedd ba naan leen naan leen dund ma mais mais da ngay sant yàlla bu baax a baax. da ngay sant yàlla bu baax a baax a baax. Mm-hmm. nekk nekk ñi nga xam ne war na la defal te duñu ko te duñ ko wax loolu dafa neex mais tey boo fi toogee tey nga ne du ma jël combat bi du jël combat bi. gaa yi dañ lay xamal te du la pajal sa soxla te ma du ma mbër yooyu du mbër yi lekk bool daf di di di kii non non waaw. nga bëreeg Tapha Mbeur. waaw bari coow. waaw ñu ne pour une première fois. Ah, Aliou Cissé ah, ah. ba boobaa combat bi di jeex. doon noppal waaw mais Tapha Mbeur ba ma koy jël Tapha Mbeur Mame Balla Mame Balla Mame Balla Mame Balla ba ba muy bëreeg dafa am bër Mame Balla daan na ay ñoom Moussa Ndoye daan na ay champion bëreeg ay ay lagrose yooyu noonu bu mu defee retour ba mu fa toogee bëre ba mu ñëwee ku mu jël dafa am bër la jël daan ko kon man man mënu ma def lu Mame Balla deful ma dafa am bër Assane Ndiaye proposé ma dafa am bër nekk sama xarit même bu dul sax làmb dañuy déggante di mu mooy conseil di mooy lool daaw lan waroon a bëri daaw jéeg ci combat booy bool marle lu waxoon naa la ko waxante naa leen ko ma ne ñu saison titre ñu waxaan ma ko ma jël ko te maa ngi ci dégg ay rumeur ñu ne dañ ko jox victoire nangam nangam. affaire yooyu noonu mbër bu ñu a dinañ ñëw foofu. waaw ak moom. Mhm. la. Mhm. Euh, victoire. waaw combat bari woon dem nañ benn instance. Mhm. sa mag Amadia. moo dugg ci géew bi. combat boobu noonu mën nga see ñëwaat. mooy combat boobu waxoon naa lu ma si wax. du bëri. n'est-ce pas dañ ne CNG ku jox victoire da ngay indi da ngay indi sa drapeau. ba drapeau baa ngi ci biir dama indi ma drapeau bi gën naa gis muy mu yor ay kayitam nee na waa CNG ñoo ko def victoire Tapha Mbeur na bàyyi naxaate yi. Ah. yow yow mi nekkoon waaw yow mi recours bi dara dara baaxu ci. mu génn ay kayitam di wax lu nekk di wax di non mooy loolu nee naa la man du nee nee naa la ku xam Alioune Sèye doo xamee xamee woo ko ci wax ju bëri même signature boo ñëwee boo waxee sax damay reet nangam nangam yaa amee dégg man li nga lu ma la mbër mbër du ay affaire nekk ci kii di non non mbër xamal lal la benn mbubu la rek benn jour rek nga koy sol mooy jour làmb ja at bu tëjee barrière yi ah mais boo fekkee ci mbedd bi nii may dox di dem da naan kii du mais bu ñu tëjee barrière yi nga xam ne lépp dëgg la yaa dégg ñooñu ñooñu loolu loolu ñu nekkee mbër loolu mooy loolu ñoom loolu ñu nekkee mbër loolu baaxul yaa may dégg ñun dañu marqué suñu empreinte ci làmb bu rek ay champion ku bëreeg Cheikh Niang seex Niang bëri na Modou loo ku bëreeg ku bëreeg ku bëreeg euh, euh, Mbaye Diouf Mbaye Diouf bëri na ak Eumeu Sène yaa may dégg ku bëreeg ku bëreeg Brise de Mer Brise de Mer bëri na ak Boy Niang ku bëreeg Bébé Modou Lo Bébé Modou Lo mu fi tegle huit combats huit victoire koo ñaamoo ko daan ak man ak général yaa may dégg ma daan Félix ah daan Batista moom moomu euh, Tapha Mbeur mënul daan Batista billaahi mënul daan Batista mais maanaam maanaam li li ñu booloon mooy mooy fi ma nekkoon rek defet moo ma boole ak moom. kon ba euh, dëgg gi daal yow yow yow yaa ngi ci làmb. bas bas mii mu ngi ci làmb maanaam dañ ne la CNG bu boo defee sa recours bu léegi dañ naan delloo drapeau bi am yu fi delloo am na mbër yoo xam ne fii bëri xam naa ci ay mbër mais du ma ko wax am na mbër yu ñu bëree ba pare ñu dem seen recours ñu yaa may dégg mais man du sama ménager du CNG du kenn man maanaam bàyyi ko mu wax ci loolu ñun ay taalibe la ñu nekk ñu xamee kenn xamee ñu wax gars yi lu ñu xamee jëf. yaa may dégg drapeau bi mu ngi ñëw léegi nga xam ne drapeau bi ba tey man maa ngi sama victoire di sa war di xaar yaa may dégg waaw. ba dégg sa jëw. waaw si lan la. ñu bari nañu Alioune Sèye Junior ku mu bëreel daan. Mhm. fay na. Sirikis mhm. déggatuñ ko. Mhm. Batista déggatuñ ko. bari nañ macha allah. Alioune Sèye Junior ku mu bëreel rek nga fay bébé Modou Lo. déggatuñ ko xamuñu fu mu nekk. mais mbër lu waral loolu. mais xam nga tey maanaam tey maanaam dañ ne loolu dafa ëlbatiku loolu la nga wax ne dafa ëlbatiku dañ ne Quench ku mu bëreel kenn dootu la déggati da ngay fay. ah loolu la ñu waaw dafa ëlbatiku. dañ ne Quench ku mu bëreel da ngay fay Quench ñaata mbër la fi daan ñu fay limal. Quench waaw Quench ñi mu fi daan ñëpp kenn déggatu leen yaa may dégg. mais nag nit ki doomu aadama moom soo bëree boo amee ay mbokk moom doo sonn. yaa yaa may dégg fi li gis bëri nañu fii mu bëri fi ay combat yu bëree bëree bëree bëri. mais mbër ñooñu mais maanaam ñooñu yenn combat yu ñu bëri la. combat yu nu bëree maanaam xam ma làmb moom boo ci nekk moom di bëri di daanu di bëri di daanu moom kenn dootu la kenn dootu la maanaam sa empreinte day day xaw wàññeeku. yaa may dégg yow mi dem wax ay tabaam da ko jox victoire drapeau baa ngi nii. yaa ma dégg drapeau bi moo xam moo nekk nii. xam nga lii moom tungaloo ñu teew ñuy notaal dafa am mbër Alioune Sèye Junior la le vingt neuf décembre yaa may dégg mu ngi nii drapeau bàyyi nii si mbaaru xare laa ko dugaloon. Hmm. waaw non maanaam daan ko ban rendement la ma amal sept am huit victoire laa ko ëppalee kon kii nga daan ko denc drapeau am ban ban ban rendement la ma amal. Junior. Mhm. macha allah parce que mhm. boo nee tey su ma la waxoon ne la Balla Gaye 2 Modou Lo de Guiers 2 mhm. Gris Bordeaux Bombardier mhm. VIP yooyu ma limal Sédhi ci kan lay gis bëri ko xam te ne su bëree ñooñu Alioune Sédhi Nione na man kii ni muy bëri ñoom sama sama sama turandoo moom kooku mooy sama référence ci bëre hmm. yaa may dégg Alioune Seye 2 dama kooku buy bëree su may bëree dama buy bëree damay gis sama bopp ci moom. yaa may dégg ko mooy sama idole mooy sama référence mooy sama lépp yaa ma dégg xooluma keneen li li muy yaa may dégg Eumeu sama grand la sama xarit la dañuy déggante téléphone mu may conseil di ma wax lu baax yaa ma dégg yëkkati alalam di di di ma jox yaa ma dégg jàppee ma ko rak mu bokkal ndey ak baay yaa may dégg Lac de sama sama sama grand la ñu bokk écurie yaa ma dégg Balla sama sama grand la yaa may dégg ñooñu ñëpp sama mais Eumeu Sène moom dégg lu ma la wax nee naa la li ma séq li ma séq ak moom li ma séq ak moom loolu moom xam na ko sama turando Alioune Seye xam na ko bu baax a baax kon moom tamit ndaanaan la la dëggee ndaanaan la mais ñooñu samay grand lañu. yaa may dégg mais man sama bëre su ma ku ma koy xool si kan laa koy xool ci Alioune Seye moo kooku mooy sama référence ci làmb mooy sama idole waaw. noo gisee làmb ñu bari ne lañ làmb léegi. Mhm. Euh, mbër yu mag yi. Mhm. ñoom ñoo ko xaw a yàq parce que. Mhm. cachet bi ñuy demande moo nar a fay. mais yow nan nga gisee làmb sponsor yi daw nañ. promoteurs yi fayatuñu. booy yi bareetuñu. làmb yàqu na wala yàqu noo gisee. non euh, làmb làmb yàquwul yaa may dégg mais gars yi ñoo ko bëgg a yàq yaa may dégg làmb gars yi ñoo ko bëgg yàq mais làmb yàquwul. maanaam ñi nekk ci kaw léegi mënoo mënoo mënoo ñu tabaxal arène nationale ñaata place moo moo fa ne ñaata place moo nekk arène nationale mm-hmm. mais ñu tabaxal ñu stade def ci ñaata milliards ñaata milliards nañ ci def. ay centaine de milliards ba pare yow nga wutoo ñu arène boobu bare ba pare bëgg a yàq làmb ji ba ñu fële bu ñu kenn nax état moo ñu war a wutal sponsor. Luc Nicolaï dem na nekkatu fi gars yi jàpp nañ ko. dañ ko war a bàyyi ñu ngi ñaan nag ci loxo yu mu ne gars yi bàyyil ñu Luc Nicolaï ndax Luc Nicolaï si làmba ji am na ci njariñ torop yaa ma dégg Gaston mu dellusiwaat yaa ma dégg Aziz Ndiaye dellusiwaat làmb ji neex. yaa may dégg mais pas ay sponsor làmb ji dee na làmb ji dee na non làmb ji deewul sponsor bu ñëwee làmb ji dundaat ñun ñu làmbalan yaakaar mais bu làmb ji fayee nii ñu bàyyi borom doole yi ci ci dëkk bi ñu taxawaal loolu danger la. loolu danger la loolu bu yeboo président Macky Sall mu xam ko làmb ji moom bu deeyee moom ponk li nekk ci ci ponk li nekk ci làmb ji moom buñ bëreetul moom taxawaal su mbedd bi non loolu danger la. loolu danger la ñu gars yi wutal sponsor wutoo ñu sponsor nag mooy ñu dimbali ñu promoteurs yi ñu fi bëgg bëgg a tëgg mais amuñu xaalis. bëgg nañ tëgg bëgg bëgg nañ ñoom bëgg nañoo tëggal mbëri mais amuñu xaalis dégg nga ma. kon boog nañu gars yi jàppale nañu jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax ci làmb ñu làmb lañ yaakaar waaw loolu kese la. arbitre ak CNG. Mhm. dégg nga fi problème bi. Mhm. avant feebar bii. Mhm. ñu gis ni arbitre yi ñoom dañuy laaj assurance ak li leen di fay 10 000 yi. sa xarit Malick Ngom. dañ koo dàq euh, dañ koo. Euh, suspendre cinq ans. Mhm. Euh, si mhm. moom tamit arbitre na sa mhm. euh, dañ ko war a jël à vie. arbitre ak CNG. pour yow euh, jote bi ñu jote yow ban nga ci am. man daal li wax daal mooy Malick daal Malick. Malick. arbitre benn arbitre gënu ko ci ci ci arbitre yi ba kenn amul koo gëm CNG. waaw arbitre boo xam ne day ñëw di mbër yi mu war a arbitre sax day kaf ak ñoom di reetaan ak ñoom yaa may dégg nekk borom xol bu nice yaa ma dégg kon kooku noonu buñ ko rajee ne arbit bu mu rajee la loolu ñu ngi commencé ñu ngi commencé indi lamb ay problème ndax sax su nga gis ñu arbitre bu arbitré lamb ji kii daan ñu ne kee moo daan dégg nga ma arbitre yi ji nga arbitre yu mu fi bàyyi nii ñoom xam lu ñu fi nekk avertissement nit ñi rek di dagg xaalisu nit ñi mm-hmm. waaw yaa ngi dégg mais benn menn Malick laa fa gis muy muy koo xam ne ku ku yërëm mbër la ku yërëm mbër la bu lay arbitre sax du la bëgg def du la bëgg jox ay ay kon kooku noonu CNG bu amoon ñett ñu mel ni moom wala ñeent ñu mel ni ñoom kon làmb ji di xëy na avertissement dina xaw a wàññeeku mais ay yeneen arbitre yi ñu fi bàyyi yëpp mooy arbitre di joxe avertissement man sama ko maag Tapha Mbeur ñu ma dagg sama deux cent quarante mille yaa ma dégg loolu ci arbitre arbitre bu njool boobu moo ko arbitre bu njool boobu ku njool kii mooy arbitre bu njool bu arbitre bu njool bi ah. kooku moom keesu CNG rek lay liggéeyal hmm. yaa ma dégg hmm. mais nag ñoom ñu ngi ñaan suñu papa Alioune Sarr mu bàyyee ñu Malick ak Sitor yeneen nag moom xaw ma leen mais tamit bu leen mënee jégalu ñu jégal mais daal moom baax na ci baax na ci ci arbitrage bi bu baax baax a baax a baax ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal suñu papa Alioune Sarr mu indiwaal Malick waa sinon bu ko indiwul rek après yeneen yeneen conséquences yu am ci arbitre rek xam ne ñoom ñoo ko indi ah waaw ndax malik Malick si arbitre CNG dafa baax waaw dafa baax trop waaw. beneen mooy Alioune saar ñu bari nañ cinq ans de pouvoir c'est trop. Mhm. Mhm. ñu gis ni sa mbokku mbëri. yi ñoom ñëpp yow pour yow. Mhm. instant mu dem. ndax gis bari. ñu ngi naan Tyson. est naa yor euh, man daal li may wax ba di ko wax daal mooy man du ma ne benn kenn dañ de yor CNG Alioune Sarr daal bàyyi li may wax rek ci président Macky Sall nee ñoom ñooñu bu ñu amee ku leen gën. ñu teg ko fi mais fii ñu toll nii fii ñu toll nii am Sénégal moom amul ku gën Macky Sall amul ku gën président Alioune Sarr loolu moom bu dëgg taxee rek ñu koy wax man ànduma ak Alioune Sarr man làmb laa àndal yaa may dégg mais ku gën Alioune Sarr suñ ko amee rek ñu teg ko fi. Ah, mais waaw ku gën Alioune Sarr bu nu ko amee ñu teg ko fi mais mënuñu jël kon maanaam ñu jël ñu jël la dëgër maanaam kon suñu kii laa koy ñu jël la dëgër jox ko CNG. Ah. Alioune Sarr junior bu suñ ko waree dagg un million. yaa may ñun nañ jëli keneen ku bokkutoo koo xam ne koo xam ne du mbër du dara ma man si sama gis-gis mais xamal làmb moom waru am par parloo Alioune Sarr amul kenn ku mun a wax ne Alioune Sarr fii la far ak fii la jógee non non amee ko gën Alioune ñu teg ko buñ ko amul nag ñu jéem ko fi teg jéem a xool maanaam ñu jéem a ku ko gën waaw l'émission tire à sa fin. Mhm. dalaloon ki nga xamante ne moom mooy Alioune Seye Junior. Mhm. dafa wóor. Mhm. mais waxtaan nañu ci moom li nga xamante ne moom mooy diine. ñëw ci làmb parce que tamit ñu koo téye fii. ndax wax dëgg yàlla li mu wax yépp. wax dëgg yàlla leer na. mbër euh, lan ngay tàggatoo. li may tàggoo daal mooy maa ngi gërëm sama sama xarit sama idol waat Mamar nee naa la kooku. bu benn baraak Mamar Tall benn baraak su ma bëggee bëree. su ma bëggee bëri laa ba ci def ay affaire moom moo nekkoon sama sama idole nekk sama référence yaa dégg mais Alioune Seye moom lañu yëkkati teg ma ci loxoom ma tuddee ko sama bopp mu nekk sama référence mais Mama Tall moom moo nekk sama idole nekk sama référence ne koo xam ko dem rey ci làmb waaw ah, nag làmb moo waxul dëgg waaw ah, mais maa ko nuyu baax sama grand la moom it Mamar Tall bu benn baraak waaw garaaw ba ma sante ñooñu ba pare maa ngi sant sama di sant sama encadrement sama staff maa ngi maa ngi sant ñëpp kii sama mag la sama sama doom baay la. moom daal maa ngi koy ñaanal rek maa ngi koy ñaanal bu baax a baax nee naa sama doom baay la mais ñoo bokk ndey ak baay waaw maa ngi koy ñaanal bu baax day day sonn si man barke sëñ Babacar si waaw di gërëmaat sama staf ñëpp. Amad ja Baay Ibra Omar Fall ma Diop Baay Ginaar Abu si sama doom ndey la sama xarit la waaw sama xarit la sama seex la sama lépp la da ciy sonn bu baax a baax a baax waaw ñëpp daal képp koo xam ne rek yaa ngi dëkk Firi Live carte basse mbawar gi fii nii ñépp ñëpp ñëpp ñëpp maa leen di sant di leen gërëm waaye di gërëm tamit ñi may jàppale ku ci mel ni Masata Alé Ndiaye mag Aziz Ndiaye daf may jàppale Kéba Kanté daf may jàppale ah Abdou daf may jàppale Moussa gisee daf may jàppale per baabu daf may jàppale yaa ma dégg waaw di gërëm di gërëm Modou Mbène Diop tamit daf may jàppale bu baax a baax baax a baax waaw gërëm sama xarit sama sëriñ seen Cheikh Gallo Thiaw tamit dama daf may jàppale bu baax baax waaw maa ngi gërëm daal ñëpp daal ñëpp maa leen di gërëm ñëpp ñëpp di gërëm sama moodu moodu yi nekk ci kaw di ñaanal di leen wax affaire bi am ni yàlla ko suñu borom dàq waaw ku ci mel ni Ablaye Thiaw kooku kenn la ci man Mor Dieng Moustapha Sall doom père Ali Sall euh, Serif waaw V Fall waaw ak sama goro yi nekk Italie ku ci mel ni euh, mère Fatou Kane ak euh, Aysata Mamadou Maam Jaara waaw maa ngi leen di ñaanal daal yàlla fa ngeen nekk ci Italie yàlla na ngeen am jàmm bu baax a baax ak taaxat yi ñëpp maa leen di sant di leen gërëm di wax ñu ngi may jàppale bu baax a baax a a baax a baax a baax a sant ñëpp daal gërëm ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp waaw di sant sama benn koo xam ne kenn la ci man mu sama mag du ma tudd turam moom xam na man xam naa yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla fekk sama njëriñ ci barke yonente wi waaw maa ngi sant maa ngi koy sant bu baax baax réewam moo tax namu ma dara namu ma ko barke sëñ Babacar Si waaw maa ngi sant ñëpp daal gërëm ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi sonn ci Alioune Seye Junior maa lay maa lay nuyu di la sant di la di la fay di sant nag seen site bi wasaare yàlla nekk ay télé te xam naa ne moom incha allahu rabbi ci kanam tuuti rek lu gaa yi taal di lu lu gaa yi taal di gis TFM di ngeen gis wasaare ci kàttanu yàlla incha allah rabbi non dama xam ne xam ne yéen da ngeen di waaw ndax ku xool ku tàppe net bi di xool seen seeni seen seeni seen i seen i xam ne ni carrément lii du affaire nekkul sit internet kese mm. am na leneen luy ñëw ci ginnaaw mais yàlla nañ suñu borom yàlla na ko suñu borom yeggale ak jàmm salaam suñu borom teg ko loxo waaw sama wasila sama xarit Serigne Babou Gass yàlla na teg loxo ba ngeen ba ngeen ba ngeen raw TFM ci barki yonente bi waaw bëggee naa leen daal bëggee naa leen bu baax a baax baax di gërëm sama gaay ah sama ñun waa couvre-feu mm. Papa Dia Mara Ngañ Mor Aline mbay mu ndaw Doora Njaga Matar Tabara ma Naar ñëpp waaw Asuja Tine Thiam Fadja suñu suñu waa couvre-feu xam nga instant bii dañ ni couvre-feu la nekk ñun trois ñun cinq heures la ñuy dugg ci biir kër gi ba benn heure bi ba suba waat ñu seetaan suñuy suñuy film seetaan suñuy làmb waa mais jàmm rek moo neex. mais seen challenge bi ah. mais xam nga <laughs> non non non jàmm rek moo neex. Eh. jàmm rek moo neex jàmm rek moo neex. micro jàmm rek moo neex yàlla nu yàlla defal jàmm yàlla nu yàlla defal jàmm di gërëm nag sama waa mafia. Talla Diop dañuy jàppale Talla Diop benn baraak bu armée dañuy jàppale bu baax a baax a baax mafia bi ku ci mel ni ku ci mel ni armée général. waaye ñëpp daal maa mafia bi ma fia taale bi daal maa ngi gërëm ñëpp ak grand da ñëpp maa leen di siyaar di leen bégee bégee di leen wax daal law ba faw rek law ba faw law ba faw loolu dafa leer di ko béggeewaat bu baax a baax moom Alioune Seye junior mu nekk koo xamante ni kenn la ci man parce que li may wax rek euh, mu nekk suma xarit ba pare nekk suma la ku la tuddee doom rek kooku da laa bëgg ko ñaanal jàmm ak salaam di ko wax yàlla jàmmam moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina ko lool sama ma ci euh, na ko si yàlla defal jàmm wax dëgg yàlla daaw ma ko wax sax nag mais ndax nee na am na loo xamante ni soo ko nëbbee rek mooy dañ cee fieru te dama cee dama fier ci moom ndax kon li mu wax rek nekk na mag bu am fulla bu baax koo xam te ne du jëw problème jàmm yoonam nekku ci loolu mën naa ko seedeel di ko ñaanal jàmm ko koy papay Fatma Naar bébé di euh, papay bébé ñaasa di chéri may jàllo waaw di leen béggawaat bu baax a baax ah yéen ñuy seetaan surtout sur euh, euh, wasaare lamb wasaare TV kon ni ma koy waxee rek nee naa leen yéen ñu bëgg wóolu ñu ndax nee naa leen sama séeréer bu naes bii di Basiru Diouf nekk na koo xamante ne bu ne koo acca rek mu ne acca di ko ñaanal jàmm yàlla na jàmmam yàgg di bëggee ñëpp ah di bëggee nag tout la famille Dia mais rawatina ki nga xam te ne suma mag la suma xarit sama lépp muy Bada jaa mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla da ciy jàpp bu baax a baax bëgg ma lool ba kenn du ma laal loolu moom di ko ñaanal rek ndax nee naa la mag sama euh, lépp loo ma yéene rek yàlla nañ ko bokk ndax xam naa li nga ma yëpp di béggawaat boo yëpp kon ku ci mel ni euh, papa ja waa couvre feu loolu la ñuy wax maaraaja sama doomu xol bi nga xam xamante ni dama ko bëgg loolu ak ngañ pata di ko béggee sama xarit bi nga xamante ni sama amee problème sama téléphone rek moo ma koy defaral di béggawaat waa mordia le messi di béggee a Tina Thiam ñëpp mais sama xale yi duma leen fàtte ku ci mel ni doora sama chéri mon nga xamante ne moom mooy ma Naar bébé Umu ak ñi nga xamante ne ñoo may wéeteel rek Tabara Aline Bay Roubé di béggawaat ñëpp ñëpp ñëpp papa ja sama lakkar mais Satou ja sama doomu xol di ko béggawaat bu baax a baax fajja ñëpp maa ngi leen di béggee ah, ak faama mi nga xam te ni moom moom may toppatoo sama sët boobu noonu di leen béggewaat bu baax a baax naan leen nag nii la ñuy def mbër ak diine dañuy fas yéene dem waat beneen daanaan beneen mbër rek lépp pour waxtaan ak yéen bébé ñaa sa béggewaat naa la bu wér a wér jaay jëf Basiru Juuf